people yi nañ leen à chaque fois comme ni ñu koy defee di leen dalal ci seen plateau spécial polygame donc bu ngeen gisee plateau bi nag seen xel war a dem ci le 25 février li nga xamante ni moo leen war a xaar fële ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba waaye nag dañ fi dadal ñoo xamante ni casquette yi ñu àndaale ci plateau bi moo bari parce que chargé de production mu ngi fi chargé de la communication mu ngi fi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci technique bi ñu ngi fi dañ koy dooree rek ak ki nga xamante ni moo di Bou Kounta Ndiassane borom ñetti galon yi. man waaw. merci namoon nañ la. billaay maa leen rawoon ah, merci beaucoup Zena c'est c'est un plaisir d'être invité dans un plateau de Sen People maa ngi nuy internautes yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre à travers cette émission di la remercier toi aussi euh, de par la qualité. émission yi nga xamante ne yaa ngi koy faral di def à chaque fois. merci beaucoup ça féliciter di la encourager en ce sens. bon voilà plateau spécial bi moom tey euh, c'est Sen People qui est à l'honneur ñu jëm nag ci événement bu mag muy le 25 février. d' accord événement bi dinañ si ñëw mais da nga yor benn casquette boo xamante ne peut être que mën nañ ne yaa ngi ci acting bi mais tamit yaa ngi ci production bi bu ñu déggee yaa nekk chargé de la communication bu MAP. exactement. Vous alors savez... comment tu fais pour rallier ñaari casquettes yooyu. <clears throat> non c' est pas c' pas trop difficile parce que euh, en fait euh, mu na la maison africaine de production euh, ça a été une idée bu ñu mettre mu ne nekk aujourd'hui une maison boo xamante ni ça c'est en train de produire benn film bu am doole muy benn film bu am prestige polygame comme vous savez déjà ñu nekk ci acteur euh, mën naa ni tout chaque an ku bokk ci biir polygame rek mën naa ni membre intégrant nga ci biir la maison africaine de production parce que ce sont des jeunes qui se sont formés accompagnés aussi des gens qui sont des adultes euh, qui les poussent on a monté une chose sur place la maison africaine de production ku ne xam na ne donc c'est une maison moom ne si peut en euh, le rôle de chargé de communication euh, ça revient un dans mon domaine parce que ma aussi j'évolue dans le domaine de la communication en dehors euh, de de de mes activités artistiques. ah da nga subir formation boobu. Oui, j'ai suivi une formation en communication. je dispense même des cours de communication dans une université ah, de la ah, place. super. Après, les gens cours, alors ah, ouais, mais, ouais, mais voilà, c'est bien possible. Et ça ne sera pas difficile de vous donner de communication, si bien que vous êtes vraiment des, des bêtes d'oratoire. Donc voilà, donc certainement, ça, ça, ça va juste tout simplement euh, repositionner déjà les de communicant que vous avez déjà. d'accord alors tey jii bu ñu waxee polygame mu nekk une production boo xamante ni daan nañ ko gis peut-être et c'est différent de li nga xamante ni moom la faral di gis jamono yi ñu toll avec la révolution dans le milieu du cinéma pourquoi le choix de polygame avec modestie bi nga xamante ni moom ngeen ci jël donc mu mu percer également muy mel ne dafa refléter réalité série sénégalaise donc quand vous le choix de polygame déjà je dis mention spéciale au de films qui a eu l'ingéniosité de penser la série Polygame. Et Polygame, en fait, c'est un concept nouveau, mais c'est aussi un déclic du cinéma sénégalais. Parce que, bon, regardez, euh, la configuration de Polygame, par rapport à, à l'aspect naturel, par rapport aux scènes, mm-hmm. euh, aux séquences, autant pour moi, euh, le déroulement de l'histoire, de la trame, Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, on est à l'épisode plus de 769 mhm. Et à chaque fois, la trame évolue. Mhm. À chaque fois, il y a des séquences nouvelles. Donc, l'oro, c'est l'ingénierie du scénariste, déjà, mais aussi toute l'équipe de production qui accompagne aujourd'hui cette série-là. Mhm. Euh, Sénégalais, nous avons adapté quoi Moi, c'est une série qui de respecter un peu l'éthique, hein, déjà, euh, de respecter aussi certaines règles morales. certaines réalités sénégalaises il y a pas de perversion euh, di nga dégg nekk di nga dégg ay fer di nga dégg beaucoup de choses tu ne verras jamais les chambres doo ko gis doo ko gis di ko dégg les gens vont jouer sur ça mais jamais tu vas tu vas le voir donc loolu nag euh, tax na tey euh, polygame c'est c'est c'est un rendez-vous de toutes sortes de générations de toutes les générations confondues sëriñ si dañ koy seetaan les autorités dañ koy seetaan le père de famille da koy seetaan entouré de sa famille xale da koy seetaan mag da koy seetaan c'est parce que on a eu à joser tout cela à faire quelque chose qui répond aux réalités sénégalaises on a eu à repeindre en réalité li nga xamante ni mooy le quotidien sénégalais li sénégalais di dund tous les jours li dugg tuuti rek euh, yi nga xamante ni moom la fa acteurs yi euh, di incarner par exemple tey ku ci mel ne Binom nekk foofu borom këru bàjjen di ko denc polygame moom kenn mënu koo tudd te tudd ñu bàjjen ak uh, ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye mooy ñaari phénomène yi nga xamante ni daanaka mën na ni ñoo ci gën a fës. Mm-hmm. waaye tey sa relation ak uh, bàjjen. Mm-hmm. naka nga koy dundee ginnaaw bi nga nuyoo ba pare. bon ah, di la ziar di ci Sénégal ah nga suñu kër la. Mm-hmm. du fi gan parce que moo ñu accompagné. loolu dëgg la ñoo leen siiwal. waaw ñan <laughs> ok ok amul problème <laughs> yi ay ordre ñoo ñoo siwalante ah ñoo siwalante ñoo siwalante waaw voilà dem leen <laughs> voilà sott jeeg def ci mhm. muy Sene People ak euh, maison africaine de production waaw ñoom link la dafa naa ni ñaar ñooñu kenn mënu leen a tàqale euh, ànd bi rafet na pour cela que moo tax euh, ñun ñëpp ñu yegg si fii ñu yegg si mm. waaw parce que nekkin bu rafet dafa am solo te loolu rek moom lañ fi wane waaw sama relation ak bàjjen nag bon axe la bu garaaw ci biir film bi parce que man toog naa lu yàgg aw ma soxla moom it demoon na ba bëgg a dugg ci gaal gi mooy ci gaal bi nga xamante ne <laughs> mooy bii dem ba jeexal rek. <laughs> maa ko sëbe quoi dama ko sëbe <laughs> uh-huh. ci biir film bi parce que doom ji la yónni mu ñëw doxaan si moom moom moo ñëw expliqué mu ñëwee waxtaan ak man. ma daal di wàcc parce que man programmé tu ma woon sama vie pour am soxna parce que ci histoire film bi sama soxna dafa décédé woon mooy yaayu umb waaw ñu demee ba ci biir nag man kii naa mais après booyam bi xam nga sama gaayen la moo ma convaincre ma ne ko ok ak ñu essayé voilà léegi nag suñu jikko ji ànd kay loolu tax ñu ànd ci film bi. ak tey tey bàjjan ni mu ni mu ni mu doyee waar tey mhm. bàjjan mu ngi ci jàppal bàyyil bi bandi bandilu bi ak mhm. tey rôle bi nga moom ngeen joué foofu lan ngeen fa bëgg a expliquer clairement Sénégalais yi. pour expliquer ni ànd moom fu ne la ko yàlla tuddee te moom comportement bi mu yor lu ñu war a mën a changer la parce que lan la doon wax ay rocci jam. rocci waaw ay wër xew yi fu nekk mu dugg fa. Mm. te man loolu arrangé wu ma mm. parce que man boo gisee ñoo am histoire à chaque fois day nekk ci. bañu ma mu togg mais dem di toggal samay éléments yi nga xam ne maa leen formé loolu laa dul woon nangu. waaw bu ñu jotee rek ci wàllum togg bi la. te moom daa bëgg togg te du ko bàyyi man dem naa ba convaincre ko sax pour mu ñëw ibbi resto. pour togg mais moom boobu gënalu ko xew mbana yee ko gënal. mbana yee ko mhm. moo tax ma ne xaaral ba ba ko rek comme looloo ko gënal yóbbu naa ko formation def naa ko frais boo suivre film bi fu ne dugal naa ko fa. Mhm. mais taxul mu ba. ma xam ni kii yëfam la quoi. ñu gis ni yaa ngi deux casquettes également ci maison de production bi. Mhm. Mhm. tey nga nekk en même temps chargé de production. Mhm. donc est ce que méttiwul pour nga rallier acting bi ak euh, beneen casquette bi. waaw c' que xam nga nag euh, métti bi du mën a feeñ. parce que ñu bëgg fa daje. comme ku ci mel ni Bou. Samba Diaw. Kébé. link la daal li daal link la ku ci nekk da ngay def pour mu baax. waaw film bi même buñ ci amul dara dara dara. askan bi bëgg nañ ko. bëgg bëgg boobu dégguma. ma ne waaye am ngeen ci dara. ok loolu soo yëndee ci. mi ngi leen fay. ma ne ko loolu soo yëndee ci <laughs> ak ay iPhone 14 plus. mais bu kii dafa ñëw pour pour pour. non dañoo bëgg a dévoiler mais garaawul amul problème. Ah, xamul ne ay soldat laa àndal ñu ci bunt bi taxaw. non c'est que man le problème en est que mooy man gis naa façon série bu nekk. gis naa série yi nga xamante ni tey dañu dañu évoluer mhm. mais. peut-être gisuma par exemple fay bi nga xamante ni fay na leen ko comme yenn euh, acteur polygame yi mhm. parce que quoi qu'on puisse dire aussi dafa am euh, même euh, autorités yi dañ leen di seetaan mhm. gis nañ ni dañ leen a bëgg mhm. am na si ñoo xamante ne tout le temps bu ñu yëgee ni dañ leen di invité dañuy woote pour bàyyi fi ay yóbbante loolu yëpp tey lan moo ko waral bon parce que problème bi mooy mooy def li sénégalais yi bëgg la parce que ñun réalité lañu joué comme ñu la ko bu waxee woon sànq wane wuñu biir néeg ñu ngi wax li ci biir néeg kenn ñemewul kenn bañul am ragalul bokk pour du moins di toog ak sa njaboot pour seetaan ñu ñun parce que waxuñu fi wax ju débordé boo demee kilifa diine yëpp daanaka sax rek ñuy seetaan. bu fa demee keroog dañ ñuy tegal ku ci mel ni Touba dem nañ fa. sëñ Abdou bañ egsee loolu lañ jàpp. wax nañu acte bu rafet nee ñu man film bii film yëpp bii laay seetaan léegi parce que bii seetaan naa ko teggin bi ci nekk tax teggin dafa am ci solo loolu mooy suñu réalité ñun waaw pour cela que moo tax ñu jàpp ci xam ni moom lii mooy suñu yëf. d'accord euh, dinaa ñëwaat ci yow Ibou Laye parce que mhm. sànq maa ngi wax nga may jéem a recadrer waaye xaalis bi moom incha allah dinañ ci dugg ak li nga mhm. xamante ne moo nekk ci compte yi. honneur aux dames maintenant Fara waroon a ubbee sax ni assistant Traoré ñu gën koo xam ci xadi xale de xale bu ñàkk kersa bu nekk ba toog. bon Zeynab maa ngi lay nuyu di nuyu internautes Sénégal yëpp di kontaan bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal fii ci plateau bi tey. d' accord xadi tey nga incarné rôle boo xamante ni peut-être que mën nañu du ma ne sax raar na mais xëy na fulla gi ak caractère bi ba nit yi di wax entre guillemets que nga xaw a ñàkk kersa. <laughs> qu'est-ce que sa te fait tey nga incarné rôle boobu mu de ba pare nag mu yomb si yow. bon comme li nit ñi di wax ne genre dama ñàkk kersa affaire yooyu noonu jàppee mu ko dara dama jàpp juste que ne rôle bu ñu ma jox la et que dama ko réussir. donc loolu moom moo tax ñoom bu ñuy seetaan dañuy gis ne que ni genre dama ñàkk kersa wala dara mais nag n'empêche caractère bi moom fi la nekk moom <laughs> xam naa loolu moo tax ma gën a. caractère <laughs> bu bambara bi ah. waaw bu bambara <laughs> bi justement d'accord léegi tey nga interprété euh, rôle bu am a am solo maanaam nga nekk jigéen nekkoon sa biir kër yaay am borom kër di dund loo xamante ni euh, peut-être am na bon nombre de jeunes filles yu koy dund est-ce que mën nga ñëwal tuuti ci sa interprétation. dëgg la parce que dafa nekk loo xamante ni dafa dafa nekk ci société bi parce que tey ji nga gis koo xamante ni dafa génn Sénégal pendant des années dem Europe liggéey yi bu ñëwee Sénégal vacances la fiy def benn un mois bu baree ba bay mu ñëw xam nga profito doxaan la si takk la et que moom li ko yitteeloon yépp mooy genre am ak yow benn intimité bi après voilà dem quoi genre loolu la woon sama diggante ak Pathé affaire yi gën a metti gën a compliqué parce que yombul tamit leçon la rek boo xam ne dañ koy véhiculer pour xale jigéen ñi parce que loo xamante ni dafa nekk la dafa am te ñu ngi koy dund bu baax. donc surtout ci yéen ñi nga xamante ni yéen ay célébrité yi. justement. da ngeen di attiré bu baax euh, góor ñi mais après buñ ci paree rek pare nañ ci la ñuy dem. justement parce que tey jii nii mën naa ne euh, boo seetloo. même bu fekkente ni fii nii Sénégal dañuy suivre bu baax diaspora bi ñoo ñu gën a suivre. Mhm. parce que boo boo seetloo tey jii ñi lay woo di la contact contacter partout. Mhm. ñoom ñu ci bari nekkuñu Sénégal donc ñoom fi ñuy nekk dañuy am genre dañ dañuy dañuy xaw ma naka laa ko mën a woowee dañuy xeeb mais xaw ma lan la daal mais. daf si am daf si voilà mi ngi noonu donc li li nga xamante ni loolu la ñuy bëgg. Mhm. tout le temps dañuy bëgg di duggante ak yow. et que xam nga rek ak jamono bi ni mu mel dara wóoratul. mais yéen yéen a ngi moytu bu baax. waa ñu ngi moytu lu ñu mën. ci li ngeen mën. Mm. d'accord si temps xam naa ne après dinañ ñëwaat ci yow <laughs> waaye yàlla dafa def ni kenn mënul wax euh, affaire production te laaluñu ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk ci équipe technique bi muy wàllum image wàllum son bu setee ba ñu koy mën di bëgg aussi di ko seetaan si la bokk alors ba tax na nag am nañ ci plateau bi ki nga xam ne moo di Ousmane Kaba. di la fay bu baax di nuyu téléspectateur Senpeople euh, di kontaan vraiment ci invitation bi parce que lii daanaka c' est quelque chose de très rare. Mhm. c' très rare ngay gis ñun yi nga xam ne ñu ngi ci euh, mën naa ko tuddee backstage bi ci coulisses yi. Mhm. Euh, ñuy toog ci émission donc voilà c' est c' est quelque chose boo xam ne ça n' arrive pas tout le temps. Mhm. vraiment di kontaan di am mbégte di teew fii nga xam ne suñu kër la ñun waa Team Brikam ah donc ah, di di di di kontaan daal ci loolu tey nga bokk ak euh, di liggéeyandoo mën naa ne ay artistes yoo xamante ni ñu doy waar lañu <laughs> quoi qu'on puisse dire parce que xam naa ne di nga ci gis bu ne façon bu ne ay Mbuukunta fii Ibou fii fii Sitan fii Ndeye Ndiaye phénomène naka ngay def pour liggéeyandoo ak ñoom. waaw xam nga euh, loolu yëpp ci ci cadre familiarité lay dugg. Mhm. par exemple ñun nit ku nekk day jugee këram ñëw tournage muy Bou muy Sitan muy Binaw. Mhm. Euh, te ku nekk day jógee sa kër indi benn état d'âme mm. moo xam bu am problème ak jabaram moo xam sitan am problème ak yaayam mm-hmm. binoom que zalika naka noonu mais cest à ñun la technique dañuy def de telle sorte que mm-hmm. tey nit ki su ñëwee bu amee indaalee mécontentement am ci biti mm-hmm. li ñuy njëkk a def muy ibbi kanam bi duggal dugg dugg ko mu dugg ñu ñu toog ñu kaf ñu ree cest à su fekkoon ne dafa am problème bu ki bu mu quitté këram à cent pour cent bu ñëwee tournage ñun dañuy réduire dañuy fexe réduire problème bi à quatre vingt quinze pour cent nga xam ne cinq pour cent moo koy dese. Mm-hmm. donc cinq pour cent mooy énergie bi nga xam ne moom lay dégager bu toogee ci plateau mm-hmm. ce qui veut dire que connexion bi day yomb te li ëpp si li ëpp importance ëpp solo muy la communication. Mm-hmm. te ñun yàlla def na euh, la law la cat euh, nekk nañ benn famille boo xam ne nous communiquons tous que ça soit muy Bou que ça soit muy Biram ñu heure donc c'est-à-dire loolu dafa yombal aspect liggéey bi. Mm-hmm. ba pare teg ci ñu nekk ay professionnel polygame ñi fay jouer ñëpp ay professionnel lañ ndax professionnel mënul weesu euh, li nga xamante ni ñu ngi lay xaar àdduna Sénégal di ko xaar mun naa ne àdduna di ko xaar mais soo ñëwee à chaque fois da ngay def plus ban Sénégal ban équipe nga fi mu a gis ñu def plus de sept cent épisodes. c'est très rare série mm. amul. Mm. fa fekkee si je me trompe pas amul. si mais loolu est-ce que tey jii du originalité bi nga xamante ne moom ngeen adapté moo ko waral. mooy li ma la wax xam nga tey quand on parle de polygame. Mm. polygame c'est un c'est c'est véritable chef-d'œuvre mm. mais chef-d'œuvre boo xam ne dafay mettre à nu euh, réalité yi nga xam ne moo am si biir famille polygame. Mm. kër gu ne par exemple tey da ngay dugg ci benn kër polygame mais da ngay gis asu day xëcc jaar yoonam. Ndeye Ndiaye jaar yoonam sëñ jaar yoonam mais bu ñu dajee seen jëkkër toog ils veulent mo elles veulent montrer que oui ñun déggoo nañ alors que au fond de kenn mënul supporter parce que wujje neexul amul benn jigéen bi taxaw ne la man damay je suis fier de partager mon homme mm-hmm. mën na ko wax parce que way ouais, les caméras la le les personnes la mais au fond del tey boo tëddee sa biir nekk xam ni si temps mi euh, euh, jëkkëram Ibrahima mi ngi ay si si Zeyna mm. mais bu toogee va se écoute xool bi day laaj. donc le polygame bi day day mettre à nu ses mm-hmm. am teggin comme ni ko kii waxee am yar. Mm-hmm. parce que du ci gis dara dara loo xam ne tey man polygame sañ naa toog ak sama yaay. Mm-hmm. di ko seetaan parce que sama yaay chaque jour bu ko seetaan bu pare day jël téléphone am woo ma wax wax ma lii ma reetaan. mais tey bu ñu demee ba dugg ci aspect boobu donc dafa dañu fekk ci sénégalais yi ci seen réalité. mais ñu teg mu teggine mu am teggin boo xam ne ñu technique bi. tey bu ñu demee gis ne euh, tey lii nii ñuy teg nii mi ngi jàdd ñun dañuy njëkk alerte ñu xoolaat professionnel yi jël. Mhm. yàlla def na nag ñii ñuy liggéeyal nag wax dëgg yàlla am dañu neex liggéey parce que liggéey professionnel mooy loo ko laaj mu jox la. Mhm. parfois mu jox la loo ko laajul. je pense que moo tax tey ñu mën a ñu mën a agsi bu fii ñu yombal ñu suñu liggéey. d'accord tey en tant que membre de l'équipe technique ban euh, perception nga am ci euh, modernité bi nga xamante ni moom la ñu par rapport aux séries sénégalaises pourquoi yéen ngeen choisir def le contraire. waa xam nga ñun dañu am suñu réalité euh, dañu am suñuy caada tey mënuñu di ay éducateur lañu ba pare di bëgg a éducat di bëgg a éduquer d'une manière tout à fait négative. mais genre am nga tey jii par exemple yow image boo xamante ni moom nga am par rapport ak. Euh, li nga xamante ne moo di modernisation bi. waaw xam nga tey xam nga tey li may wax souvent. Mm-hmm. fii ak cent ans deux cent ans. Mm-hmm. image day des da ngay jàngale. Mm-hmm. tey lii bu Kounta di Mbaye di joué. su toogee fii ak quarante ans après doomam màgg wala sëtam màgg euh, ban perception lay am wala ban ban ban ban ban position lay am. suñ ko génnelee tegal ko image kilifaam image woy juram mm-hmm. ne ko soo woy jur moo fi def lu bon bi si kaw nee na da doon jàngale parce que dafa am loo xamante ni juddañ mm-hmm. euh, l'islam sax dañu ko jàngal mm-hmm. kullukum raay wa kullukum masul an lépp luñ leen dénk sàmm la yow ma xiyam di leen leen nan ngeen ko sàmmee kon ñun dañu war a nekk sàmm que ça soit ci suñuy doom suñuy jarbaat ak lépp lu ñuy wër ñi nga xam ne dañuy jël euh, dañuy jël exemple ci ñun moo tax euh, ni ko defee ba mu moderne yi dañuy ibbi porte yi pour génération bu nekk kii wax na ko dañ ciy gis seen bopp muy mag muy xale muy paa muy mère muy kilifa diine yi kilifa caada yi dañ koy suivre que dañ ciy gis seen bopp duñ ci gis dara loo xamante nii dinañ dinañ toog seeni seen i doom wala seen sët di ko seetaan di dummóoyu wala ñu naan ak cam góor fayal télé bi yow fayal télé bi. xale du gis li loolu bu nekk je pense que wala éducateur bu nekk war na ko moytu ko parce que. Hmm. c'est très important tey Bou ñu nee grand théâtre c'est comme un défi à relever après le soleil levant pourquoi tey la team polygame. bon c'est pas un défi je le qualifie pas de défi mais je le euh, je je qualifie cela en fait c'est c'est une c'est c'est une suite logique. d'accord c'est une suite logique mais tey bu ñu xoolee groupe théâtral yi nga xam ne ñoo fi jot a jaar euh, yàgg na gëj nañoo gis ay euh, théâtre sur scène donc je pense que Soleil Levant moo ko fi def deux fois maintenant c'est vous est-ce que tey jii euh, peut-être que xel dal na ba nga xamante ni di ngeen mën a relever loolu noonu. pour une première fois. exactement déjà da nga tudd Soleil Levant donc je fais damay am ay ay remerciements ñuy def à leur endroit des félicitations. Euh, félicitations yi mooy déjà ils ont eu à organiser au niveau du Grand Théâtre à leur époque après réussir ko donc dañoo war a dañoo war a delloo leen njukkal ci lool parce que c'était on ne voyait pas une troupe moderne def ay séries télévisuelles après dem Grand Théâtre après mu fees quoi qu'on puisse dire am nañ mérite dans ce sens les remercier d'avoir eu cette initiative xalaat bu mel noonu ba ubbi yoon bi pour ñi nga xamante ne dañoo war a ñëw ci seen ginnaaw mën na xalaat ni demee c'est bien possible d'organiser au Grand Théâtre après ñoom combien d'artistes comédiens combien d'humoristes ont on à organiser au niveau du Grand Théâtre il y plusieurs récemment am na ay acteurs yu ko fa def ba pare nit ñi ñëw mu fees donc aujourd'hui bu fekkee polygame dafa nekk sur son époque am benn série boo xamante ni c'est apprécié de tous aussi bien qu'au Sénégal que dans la diaspora sénégalaise donc partout à travers le monde fu ay sénégalais nekk am nañ fa ay sympathisants yoo xamante ni ñu ngi suivre polygame. bien donc day bien aussi euh, il faut comprendre que euh, polygame c'est pas seulement des acteurs du cinéma ce sont des gens qui ont fait le théâtre qui ont fait les planches parce qu'il faut faire aussi la différence que un acteur de cinéma n'est pas forcément un acteur des planches mais dañoo am chance euh, la quasi-totalité des acteurs de polygame ont eu à subir des formations mm-hmm. sur le théâtre des planches moo tax vraiment ñu te c'est pas la première fois ñu def ko. boo xoolee série bi ni ñu ko déroulé dañoo ñëw tey grand théâtre mais avant grand théâtre amoon na mariage yu bàjjen activité la bu ñu extérioriser nit ñi ñëw. ñu joué ko sur place ko mais exactement pas ko par en fait d'accord d'accord il y des invitations. mais ce format est beaucoup plus large c'est juste que c'est un format beaucoup plus inclusif boo xamante ni dafa gën a ubbeeku pour nit ngi gën cee ñëw mais on l'a démarré. parce que quand tu regardes euh, euh, Tànnbéeru Ndeye Ndiaye man je peux la de Tànnbéeru Badiane mën naa ne sur scène parce que Tànnbéer la tout es calculé dañ koy régulariser ñu joxe ay dialogue nu ñu am aussi tout simplement ay entrées am ay sorties mais ça c'est la scène c'était pour viser un peu l'aspect commercial wala en fait nous c'était euh, c'était euh, selon la trame de l'histoire la trame de du scénario c'est une pierre de coups en quelque sorte parce que ñun bu fekkee dañoo dañuy def benn film ñu dem ba en un moment donné ñu gis ne dañoo war a jël avion dem ba ci kaw air bi joué ci dañuy def loolu c'est ça en fait c'était la suite binom bi ñuy def mariage am fanfare yi dañoo ñëw c'est l'armée nag qui est venue la police est venue donc tout ce que binom disait dañ koo gis d'une façon matérialisée dans la trame de la de la série moo tax tey bi ñu waree ñëw parce que boo xoolee ngénte wu Ndeye Ndiaye épisode la mm-hmm. c'est après ngeen koy comprendre ñu ñëw nag grand théâtre Charanchula c'est mille cent places c'est pas facile mm-hmm. mais dañoo gëm ni avec le soutien des sénégalais parce que ñun mënuñu dara mm-hmm. ñun aay ñu de sénégalais yi ñoo aay. parce que ñun ñoo leen di seetaan. la bëggee rek buñ la bëggee rek buñ la bëggee accompagner la. defal lu la neex. mais tey ak succès bi ngeen am euh, à l'échelle nationale xalaat ngeen tey jii ngeen dem ba produire à l'échelle internationale. exactement ce qu'on ne voudrait pas faire. Mm-hmm. c'est que du jour au lendemain ñu dégg ñu ne dem nañ euh, dans un théâtre au niveau de à Boussole en France par exemple à Paris. Mm-hmm. te commencé wu ñu def ko on na un théâtre ici au Sénégal. la référence du théâtre au Sénégal c'est le grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose ok a bëgg a commencer. on démarre mais on démarre ici déjà euh, la route est déjà balisée. Mhm. après le grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba on prévoit de faire une petite tournée nationale. Mhm. après cela c'est c'est les voyages. déjà on a eu à contacter et à être contacté par des théâtres au niveau de l'extérieur. Mhm. donc après cela Polygame va se déplacer dem extérieur dem fekk la diaspora sénégalaise aussi ñi nga xam ne amuñu chance mën a ñëw Sénégal. assister tout simplement à ce spectacle là. dañ leen à leur niveau et faire des spectacles à ce niveau. d'accord Benoît. oui tuuti jaay meeg jënd bi comme que yow moom xaalis ngay bañ ko ko tudd billet yi fu toll jamono ji. billet yi de moom xam naa li ma mën a xamal mooy ku yéex ñàkk parce que li ci des bëreetul. bëreetul a boo deful noonu loo ci génn parce que lu ñu programme wul woon la te fi mu toll nit ñi songee nañ ñu noo xamante ni moom wax dëgg yàlla képp koo xamante ni bëgg ngaa dugg te jënd goo boo yeboon naaw jëndi parce que la ma fa seen kii yor ko bëreetul de. parrainage nag man dégg naa ne ay enveloppe ay millions ay briques yooyu noonu ngeen di laal. lu ñu defal dañ koo mérité. waaw mais damaa bëgg nga confirmer ma ko. ma confirmer la ko ah, gis nga enveloppe yi ah, si loolu. parce que xaalis bi lay bañ ko ko tudd foog am na eh, xaalis eh, kii say information fan nga koy ah. am na ah parce que yow li ngay wax nii. xaalis bi yaa ngi def diffamation de ah. xaalis bi may dégg. xaalis la. xaalis may dégg fan. ndax xaalis la. xaalis bi ci polygame. waaw xaalis la. non ñun nit ñi lañu am amuñu xaalis. dégg nga loolu. waaw la ah boobu ngay wax. xaalis bi. mais ki ki lan la bëgg. mais dégg nga yow lan nga bëgg. ngeen wax ma xaalis bi fu mu toll. <laughs> fu mu toll ci. ci lan polygame mu ngi fay. par exemple bon damay jël dans euh, dans le cadre général. Mhm. dañuy gis fii ñu bëri ñoo mhm. xamante ni ñu ngi jouer cinéma. Mhm. te fayul leen et pourtant dañuy wax que ni art dafa war a dundal ki nga xamante ni moo ciy liggéey. tey polygame. bon ci li bëtu nit yi di gis xaw ma si li nit yi bëgg a wane. on voit que mu ngi fay. Mhm. bien sûr na mhm. polygame mu ngi mel ne par exemple genre école li may tooñee si temps. parce que da ngeen xëy lundi ba vendredi. voilà euh, de production mooy MAP. MAP mhm. moo def polygame. ñi ci nekk ñëpp ay emploi ay fonctionnaires lañ comme neen fonctionnaire exactement looloo tax léegi xaalis bi ngay wax nii mooy nit ñi. parce que amul kenn ku ci am jafe-jafe paiement ku ci nekk yaa ngi fayeeku ni ko war a fay mu ngi fay. kenn laaju la. ñu <laughs> fay. d'accord alors tey Khady naka nga dundee succès bi. man du ma ne succès la ah. parce que tamit. am nga succès nag ah ngay modeste modeste. lu am non mais bu fekkente ni succès la nekkul loo xamante ni man boog de ma part nekkul loo xamante ni dama koy dama genre dama dama ciy profité wala genre yu demee noonu. succès du non. tey qu'est-ce que ça te fait boo rombee xadi polygame moo nekk nii xadi dama lay seetaan. dama sama doom bi yow rek la bëgg dama damay kontaan damay kontaan te aussi lii tax may gën a kontaan te li ma ci gën a neex mooy parfois da ngay romb ci mbedd bi. Mhm. xale yu ndaw dañ naan xadi mi ngi ne. donc loolu mooy wane ni que ni ñun. non seulement li ñuy def ànd naag yar ak teggin mhm. mais bu fekkonte ne ni dafa jàdd yoon rek amaana parent yi ñoo dul d'accord sax xale yi seetaan. Mm. bay ràññee. Mhm. kii ak kii donc loolu noonu plaisir la pour man may romb si mbedd bi ay xale yu ndaw naan xadi mi ngi ne. Mhm. dama siy kontaan bu baax aussi dama ciy fier. Mhm. d' accord tey mënuñu tudd polygame te waxuñu ci phénomène bu mel ne bàjjan ak ndey jaay <laughs> ngeen ñaar ñooñu. non ñoom nag moom moom macha allah ku ci mel ni bàjjan man moom dama ko sonal moom. Mhm. man ko sonal moom tam daf ma sonal Ndeye Ndiaye comme li ma koy wax chaque jour rek dama naan ko yow yaay sama actrice. parce que man bu ma koy seetaan daf may reetaan loo en donc euh, ñu nekk ay nit ñu baax ñuy liggéeyandoo ak ñoom di xëy di yendu mën naa ne famille la rek. parce que tout le temps ñun ñooy nekk ensemble donc euh, damay kontaan bu baax di liggéey ak ñoom ba pare dañu nekk suñu ay sœur suñu ay yaay ndeyjaay moom sama sama waaye la moom bàjjan moom dama ko sonal moom. <laughs> c'est vrai dama koy gis euh, parfois si li nga xamante ni moo di say snap yi may yónnee. Mhm. ak si flamme yi alors Ousmane Koba. est-ce que tey mën nañ leen xaar ci benn touche bu xaw gën a moderne tuuti. touche boo xamante ni gën na moderne avec les décors parce que gis nañ ni que ni décor bu modeste ngeen euh, adapté ci série polygame tey ñu xaar leen ci ay euh, décor ay son ay lumière waaw xam nga tey par exemple ñun euh, li scénario bi teg mhm. rek la ñuy véhiculer parce que polygame si benn kër boo xamante ne ni li nekk ci polygame par exemple su donne exemple bu terre à terre li nekk si polygame nii moo nekk suñ kër nii papa ay jabaram doom ak i jabaram mm-hmm. sœur yi doomu baay yi donc lu lu lu terre à la lu nit ñi di dund mm-hmm. quotidiennement en fait donc ñun euh, li ñu li ñu scénario bi jox mm-hmm. c'est-à-dire loolu la ñuy véhiculer d'accord mais si si beneen production si yeneen production yoo xamante ni yu gën a moderne euh, polygame tey gis nga tey bu ñu tegee bu ñu tegee benn scénario boo xam ne dañu war a takk ay laaf nii comme ni ko bu waxee génn ci air bi filmé. fiction teg non fiction. Mhm. ñu ko defee ba pare ngeen fàtte polygame. Mhm. je vous le lii lii plat d'entrée la quoi plat d'entrée excusez-moi. Mhm. plat d'entrée la boo xam ne dañ leen di jox seen ñamu bët. parce que équipe bi ñuy liggéeyal dafa benn dafa nekk benn équipe boo xam ne dafa constituée de de de beaucoup de talentueux et de talentueuses c'est-à-dire ay nit yoo xam ne dañu bëri ay facettes loolu lañ jox ñu dem. je te donne un exemple qui j'ai travaillé avec moom si benn film boo xam ne dafa ci dof mhm. man il m'a surpris parce que bi ñu ñëwee liñ ko laaj mais daf ñu jox quinte pulbe kii naka noonu parce que yàgg nañu liggéey de polygame rek moo boole sa fait des années qu'on qu'on ensemble mhm. donc dafa nekk ay ay jeunes yoo xam ne euh, ils sont pétris de talent mhm. si tant facette bi ngeen ko gis si polygame am na beneen facette bu ko gën a extraordinaire parce que man je la et je l'ai côtoyé. facette villageoise. Euh, non xoolal bu gàtt bi ce qui veut dire tey euh, li nga xam ne moom la xaamu scénario bi teg. Mhm. ñun moom la ñuy véhiculer mais tey bu scénario bi tegee ci beneen euh, loo xam ne dafa war a moderne dañ ko war a changer complètement mhm. ah non da ngeen di gis ne kon ñii polygame dañ doon fo. Mhm. liggéeyi mais ñun bu ñu liggéeyee ñi nga xam ne carrément que lii nii dañ ko teg te dara du ko tudd. d'accord tey côté production ñu nar a dem ci bës bu ama am solo muy Grand Théâtre samedi 25 février. lan la ñu mën a xaar foofu côté équipe technique bi. à ah nom du judo on quand on parle de spectacle au grand théâtre. Mhm. Euh, lumière te loolu moom dañ ciy insister. Mhm. dañ ci insister parce que li may wax grand théâtre ay nit ñoo fay dem. Mhm. ay xar demuñu fa ku fa organiser nit ñun. donc ñun polygame bu ñu organiser grand théâtre du tout défiant. Moi, j'entends des gens dire que ouais, c'est un défi, c'est un challenge. pour, pour, une première fois, c'est normal que les gens pensent un peu comme ça. xam nga lan moo tax man pour man du défi ci man. muy mm-hmm. grand théâtre bi ñu ko tabaxee ba pare wax ma ñan ñoo organiser grand théâtre def fa festivité ba moo réussir te duñ ay doomu aadama. mais am na ñoo xamante ni quand on parle de défi c'est-à-dire am na ñoo xamante ni organiser nañ grand théâtre dem nañ seeti ay autorités jënd nañ billets yi te feesul. lépp ci mindset ñun dañu am euh, mentalité de fer bu nekk ci ñun. Mm. mooy ñun ñu defe ñun gëmuñu défaite. mais quand on de défaite c'est parce que am na défi. non je t'explique pour euh, pour pour mu édifier certaines personnes que ñu wax waaye euh, c'est un pari à réussir. Mm-hmm. par jël ko ngantaan ko. Mm. c'est-à-dire ñun gëmuñu lool ñun xam nga lan lañ gëm ñun dañu gëm dañuy teg loo xam ne dafay neex ba Sénégal bu fa dugg. Mm. doo ko regretter. parce que li tax ñu dem grand théâtre euh, polygame acteurs yi fi nekk ñi leen di seetaan di leen bëggee ci télé bi lañ gis. Mhm. donc c' est pour ñun ñu woo sénégalais ñu ne leen kaay leen ñu jàkkaarloog yéen. Mhm. dund benn moment boo xamante ni day rester ci annales yi mhm. éternellement. cest tax ñu woote grand théâtre di seetaan di leen bëgg ci télé bi rek xam nga doyul ci laa di xar dafay génn. et sinon day génn ay xale yu ndaw di ko di ko di di di di ko béggee moom muy kontaan ci loolu mais xale yooyu dañoo am ay waajur yu leen bëgg. Mm-hmm. léegi soo woowee seen waajur yooyu ñuy ñëw ngeen saafoonte ak ñoom nga tegal leen ci plateau bi lu extraordinaire pare du ñàkk ngeen gis ngeen nuyoo def ay photo mm-hmm. souvenir la souvenir boo xam ne day des ba suba bu ñuy transmettre message bi. Mm-hmm. dañ leen di teg ci axe mais grand théâtre dañuy indi juste pour saafonteeg suñuy naataango saafonteeg suñuy am di jàmm mm. ak nga xam ne dañuy bëggee ci télé bi ci moo leen a carrément da li ñu mën ci télé bi mm. ah non mën donc que émission bi moom euh, léegi ñu daal di koy jeexal alors bu bu ngeen amee dara lu ngeen di dénkaane internet yi ak ñi nga xam ne ñoo leen nar fekk Grand Théâtre le 25 lan lay doon. Euh, Ousmane dafa ni léegi programme chef d'œuvre la mais le véritable chef d'œuvre bu ñu ñëwee le vingt cinq lañ koy gis. dinañ gis lu ñu musta gis sur scène. Ngénte Ndeye Ndiaye. Ngénte Ndeye Ndiaye. Ngénte Ndeye Ndiaye. ça sera un spectacle exceptionnel. ça sera pas seulement les acteurs de Polygame il y a d'autres acteurs qui parce que ñun dañoo open. mais dinañ gis un méga spectacle boo xamante ni du début ba fin on va tenir le public en ñu ngi dinañ rey bu ñu waree jooy dinañ jooy. bu ñu waree xalangu dinañ xalangu en tout cas ce que je peux assurer kenn du jënd billet dugg ci biir salle bi ñibbi di ko regretter ku amagul billet demain c'est vendredi demal jënd billet. billet ku bëgg billet yi boo demee au niveau du Grand Théâtre di nga ko am le jour J dinañ fa jaay billet yi ñeneen ñi bëgg ci billet bu ñu xoolee ci baar bi nii def nañ ci numéro téléphone bi. mën nañ ci woote directement dinañ am billet yi. incha allah les billets sont disponibles. ñaata billets yi daal yi des. waaw dix mille lay jar ak vingt mille. te jàpp nañ ci de. ah. Hmm. mooy dañoo xam Sénégal mille huit cent places Sénégal yi dañoo bëgg. Hmm. te dañoo baax Sénégal yi. moo tax ngeen yombalal leen ñu yombalal leen ko te xam na ni ñoom dañoo bëgg a jàppale waa Polygame. c' le moment ñoom ñu dugal ci seen loxo. si temps romb yi pare na. chemisier yi pare na greffage yi liise nañ ko ba mu lappax talon yi budd na. lépp pare na xale yi daal ñu ngi préparé di wax rek que ni. Mhm. le cinq incha allah muy samdi lu doy waar parce que ngénte Ndeye Ndiaye la ñu woote. Mhm. te dañ ne polygame sur scène. donc li nga xamante ni moom la ñu tàmm di gis ci ci écran bi mën naa ne lu ko raw lu dàq loolu foofu moom mooy am biir grand théâtre en tout cas ñun moom pare nañ ci côté yëpp nag. di wax rek ne bu ngeen ñëwee di ngeen kontaan di ngeen bég di ngeen reetaan kenn du ñibbi daal di yóbbaale mer boo feebaree sax boo ñëwee da ngay tane. incha allah Ibrahima. waaw. looy wax ñu lay xaar. xam nga tëjee mooy soigne-tout. nga ne ma. xam nga ah. bi soigne-tout la lépp loo indi muy jàngoro boo ñëwee fa nga koy bàyyi. parce que dinañ ko teg ci axe. te beneen bi ci topp. ba bàjjen du togg mbanay bi. non parce que actuellement. Euh, kii def ma contacter bu pour sécurité foofu. Mm. GIGN nga fa biba nga fa. Mm. lépp ci xew bi réglé rek. champ de combat yeeg yëpp day ñëw. lépp nga ci kër yi duñu kontaan ba xam conseil du BG bi ñu naan. day am sapeur ñëpp a ngi ci biir. armée bi ñëpp bi ñëpp génn pour sécurité xew bi quoi. y' a cinq sniper yoo xam ne ñu ngi tiim nit ñi. sniper ah bien sûr. xew bi xew bu ndaw nga ko teg. <laughs> <laughs> Zeynab yaa ngi déconné de. damay ñëw. <laughs> ah moytul de. waaw parce que problème bi mooy lu toll ni président mënul ñëw toog. Mhm. madame Faye Sall ñëw toog ci wetam. Mhm. ñuy bàyyi noonu muy muy kii. non loolu yoon sécurité bi il faut ngeen assurer ko bu baax. alors Ousmane Kobar on se donne rendez-vous allah. <laughs> Mhm. képp ku am feebar. Mhm. yow fexe la soox soox même bu leen jàppoo sax nga soox ba dugg toog parce que ce qui est sûr et reetaan day faj. Mhm. mais boo fa duggee di nga reetaan ba fàtte bépp problème boobu sax am. di nga reetaan ba boo ñibbee sa kër di nga woowaat gars yi nga xam naa ne dof yi ko seet nga woowaat gars yi defaat leen quoi ñibbi sa kër donc seen rendez-vous à ne surtout mm. euh, le vingt cinq à partir de vingt heures la. vingt heures ku yéex doo am foo toog ñi des pour jënd billet man li ma joroon jeex na tàkk defe naa kii moo ci desal kii jeexal na kii jeexal na. Mhm. donc na ñëw ñu jënd billet yi ñëw toog. yaa ngi koy may lu mu wax de. waaw yaakaar naa ne duñ ko. xaalis xaalis bi ngeen di xaalis bi ngeen di bañ a tudd man loolu moo ma jaaxal. mais aar fay na leen nangu leen ni aar fay na leen. Zeyna donc boo ma mayee rek juste. je vais glisser des remerciements à l'endroit du ministère de la culture. Mhm. le ministre Aliou Sow. vraiment ministre la boo xamante ni xam na lan mooy caada xam na àqu artistes yi. te mi ngi ci dox. il nous a reçu ce matin. et il nous a accompagné. du waxuñu pour xaalis on parle d'idée mais mais aussi d'accompagnement ay accompagnement yu fiable pas des promesses les acteurs les acteurs culturels en ont marre des promesses. lui c'est un homme d'action. Mhm. remercier le ministère de télécommunication et de la communication. Euh, direction générale AIBD avec Abdoulaye ñu ngi remercier tout no parrains ku lim da ngay juum ah vraiment ñu ngi ci jàpp te ñu ngi ñuy accompagner merci à tout le monde. merci à vous euh, chers internautes de Sénépipol tey gis ngeen plateau bi que ni une partie de la team polygame ñoom la ñu yaakaar naa ni bu ngeen gisee plateau bi du mu yànjee rek euh, xam couleur yi nga xamante ni ñoo leen di xaar euh, foofu ca samedi 25 février. ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye jaay Rose à 20h spectacle bi narul guddee nar na neex waaye tamit nar na métti parce que ci ñii ci niñ ko expliqué émotion bi dina bari torop donc ñu leen di jox rendez-vous euh, incha allah bu yàggul dara ngeen seetaan ko. fii nii ci Senepipol parce que tamit événement bi ak lu mu yanj yanj bu den fàtte ni Senepipol nag mooy partenaire leader bi parce que mu ngi mënu leen dem sans ñun daal ñun aussi <laughs> mënuñoo dem sans yéen parce que dañoo bëggante mhm. numéro commerciaux yooyu si suuf euh, pour bépp placement de produit ou bien sponsor yi mën ngeen ci contacter incha allah vous serez les bienvenus